salaamaaleykum euh, mbokk yi xaritu internet yi euh, maa ngi leen di nuyuwaat man la DJ Yves animateur euh, nekk ci télévision bi di DTV tey dama bëggoon rek ñëwaat ci benn leeral comme ni ñu koy defee ak di waxtaan par rapport ak li nga xamante ne moo jëm ci mbirum Dieyna Baldé ak ki nga xamante ne moom moo di Diop Iseg bi ñu yeewoo dëmb dañu gis ñu def. ne Dieyna Baldé euh, doom ji tudd nañu ko ci benn euh, hôpital de la place euh, ñu ne aussi doom ji ñu ngi ko tuddee ki nga xamante ne moom moo di Seydina Fall Bougazeli nekkoon na député actuellement nekk ci ay jafe-jafe ci mbirum faux billets ba ñu teg ko loxo yoon nekk ci di ci def ay liggéey yu am solo ñu ngi koy bàyyi yoon yoon moom moo xam lii dëgg li dul dëgg. waaye dama bëggoon ñëwaat rek ci ay leeral ci euh, li nga xamante ne euh, moo concerné euh, Dieyna Baldé ak ki nga xamante ne moo di euh, monsieur Diop Isaac par rapport ak li nga xamante ne wax nañu ko ci turandoo bi alors d'après ñun sunu ay information yoo xamante ne euh, dañu koy topp gannaaw bi nga xamante ne jokkoo nañu ak kooku di euh, Babacar Touré nekk ci site boobu nga xamante ne mooy Kéwoulo Info di journaliste d'investigation moom ci làmmiñam moo ñu xamal ne tuddeewu ko Seydina Fall Bougazeli mais euh, Seydina la ko tuddee benn xaritam boo xamante ne xaritu Diop Isaac la euh, nekk sax li ñuy wax bras am lépp loo xamante ne euh, jëmoon na ci mbir mi moom moo ko ci doon taxaw di ko ci doxal hmm, jamono bi nga xamante ne sax nee nañu Dieyna balde am na doom moom ci boppam la ñu yabaloon mu doon dox mbir yi donc. information boobu noonu euh, laa bëggoon indi pour ñu xam ko donc doom ji au lieu de Seydina Fall Bougazelli mais d'après Kewulu FM Babacar Touré bi nga xamante ne moo toppoon coow li boobu ba léegi moom nee na tuddewuñ ko Seydina Fall Bougazelli mais benn xaritu euh, Diop Isaac lañ ko tuddee koo xamante ne même tur bi la Seydina la tudd mais euh, sénégalais yi dañuy def benn amalgame aussi par rapport ak vidéo bi nga xamante ne ñu ngi koy diffuser di wax ne. Dieyna Balde elle était très contente après bi mu bi mu tuddee doomam jël benn vidéo di ko diffuser alors moom aussi bi ñu ko laajaatee ndax moom moo doon topp information bi nee nañu c'est totalement faux que Dieyna Balde euh, actuellement mu ngi hopital ba tey parce que euh, dafa xaw a feebar gannaaw. Euh, Euh, kii bi nga xamante ne euh, am na doom donc loolu mooy li nga xamante ne mooy information bi euh, leer par rapport ak ki nga xamante ne moom moo di Babacar Touré lim ñu wax mooy que video boobu noonu video bu yàgg la bokkul ak vidéo bu bees bi nga xamante dañ koo jagleel Dieyna ne moom actuellement mu ngi nekk di kontaan lool ci vidéo bi di wax ne dafa kontaan d'après bi nga xamante ne tudd nañu doomam donc loolu mooy information bi nga xamante ne euh, bëggoon naa ko indi pour leeralal leen ko ci diggante ki nga xamante ne moo di Dieyna Baldé xale bi ñu tuddee Seydina Fall Bougazelli alors que beneen Seydina la muy bras droit ki nga xamante ne moom moo di Diop Isaac ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax woy leen di abonné ci. ci chaîne bi di leen gërëm bu baax a baax ah, ndax saa yu saa yu ñu gisee ah, lenn loo xamante ne xaw na lëndëm sunu xel dinañu def suñu kéemtalaay kàttan ah, daa di xool aussi loo xamante ne bu ñu ko waxee nit ñi dinañ ci mën a jàpp ak dégg ci bu baax a baax jërë ngeen jëf merci beaucoup.